autopsie bi génnee communiqué procureur kan mooy profité wu kan moo am intérêt à ce que Mouhamadou Moustapha demee ni mu ni ñu njort ne noonu la demee comme te nee nañu du mort naturel. waaw mais xam nga mbirum Moustapha Ba. amul lu extraordinaire. Hmm. lépp c'est dans l'ordre normal des choses. Moustapha Ba c'est tout à fait normal que le procureur santaane autopsie ñu def ko parce que le ministre Moustapha Ba. oui mais c'est le dernier ministre des finance de Macky c'était pas un homme ordinaire il occupait un ministère tellement stratégique et important pour cette république hmm. léegi bu génnee àdduna bu génnee àdduna procureur gis ni génn génnuk àddunaam am na loo xamante ne xaw na ci leer leeru ko am na lu ci lëncu waaye mais procureur du santaane ñu def autopsie non procureur ah, gis na nekk lu normal. moo tax ma ni c'est dans l'ordre normal des choses non procureur waxu la loolu la gis de. dama ne nga ne médecin may ma ñëw may ma ñëw taxawal rek. procureur du autopsie. waaw dama ni day santaane loolu laa wax. damaa wax ni procureur ko day mel ne procureur ko gis. ah damaa wax ni procureur est dama wax loolu Mouhamed. loolu nga wax kay. ah xam nga genre ngeer gi. Hmm. non si loolu nga wax. bul yàlla ma yàlla baal mais dañu xamul droit. mooy li ma la doon wax rek moom nee na passif dañu am ay xar loolu war na ko nangul ne Yérim Seck noonu la amee ay bëy qui n'ont rien compris te moom mii ca la bokk. ay bëy yu am si kii d'accord yoo xamante ni xoolal. Yérim la ñuy xaar mu wax ñu. mbéy ci kaw moom jël ngeen ko ba pare mënatu leen koo dab. tu as hmm. léegi nag problème bi mooy. dañoo jàpp ni lu musta am rek. Sénégal yëpp xare la ñuy waxtaane moom warta am boobu moom jàll na ba pare. Hmm. dañoo jàpp ni buñ gisul autopsie jàpp nañ ni quelque part la loi n'a pas été respectée xam nga da ko poser une question stratégique mu daw loolu. Hmm. mais autopsie kay si yenn circonstances yi kay ci de droit lañ koy jox famille bi jotuñu ko. yëguma ko de tey tey tey tey doo liir moo tax. Hmm. yow xam nga ni man je lis pratiquement dix quotidiens par jour di xam li xew si xew réew mi yëpp samay quotidiens ngi nii. bi ma duggee fii nga ma fekk ma toog ma tas samay quotidiens di liir. Hmm. xamale nañ ñu ni rapport autopsie bi famille ba jot nañ ko. jot nañ ko xam nga dañoo tàmmoon si régime président Macky Sall. Ousmane Sonko feebar nekk hôpital ñu wasaare kii bulletin médical am. divulguer secret médical loolu lañ tàmmoon moo tax nag ñu jàpp ni c'est tout à fait normal que autopsie bi war nañ ko fësal moo tax biñ ko gisul. waa léegi lu tax ngeen fësal Babal Ngabala déglu ma rek ñu jàpp ni ah kon kat nguur gi daa am lu muy nëbb. Hmm. waa léegi lu tax ngeen fësal da Ngabala waroon nga am honnêteté ak modestie yu wax ni rapport autopsie bi jox nañ ko jabaram jabaram entendre luñ ko dem. ak benn garde rapproché ak benn garde rapproché aide de camp am. Hmm. tu as vu léegi nag. manipulation bi famille bi jot na ko. attends lan parce que am na ñu ma ci xam de. waa dama la ne dama ne la xam nga man waxuma samay wax. Hmm. dama ne la am na ay xibaar ay quotidien waaw yu ko xibaar te du benn quotidien du ñaari quotidien yow journaliste nga. am na quotidien yoo def fii seen revue sànq. gi yor naa si ay quotidien ñu ngi fii mën naa la ko génne léegi léegi léegi. c'est que ces genre de guerre mooy ñoo xamante ni bu ñu ñëw si plateau débat mbedd li ñu indi xam nga débat mbedd mooy lan. Hmm. <laughs> da ngay dem toog si jaaykatu café bi fii dañu faak cinq personnes. Hmm. ñuy toog di waxtaane politique nga buuf lépp rek indi si plateau. te doo si vérifier dara. Ah, ñun nag ngeer am na ay machine am ba pare day gëstu si hmm. niveau boobu xam nga si ban niveau lañ nekk. moom mii xam na li may wax xam naa loolu du ko weddi. fa ñuy daje léeg-léeg matin ba. benn maa ko fay bu ñëwee fekk xam na fa may fekk ma toog xam na la laa fay def samay quotidien laay teg di documenté wu di xam li xew pour li may wax mu nekk lu factuel mais nag tel n'est pas le moom bu ñëwee rajoom lay yor nekk si waxtaanu boppam nekk si leneen fàtte na ni sax dafa war a def plateau war a respecter sénégalais yi war a wax loo xamante ni lu leer lay doon lu factuel lay doon lu <laughs> crédible. ay reetaan daf maa est defu ko à l'avance aussi. non defu ko xam naa. c'est que seen seen portable yi lañ yor. da ngay théâtre ñiy def émission yi maanaam ñoom bu ñu toogee si plateau ma wax la benn secret. bu ñu toogee ci plateau du ñoom ñooy def émission kay def émission xoolal nekkul fii yëpp. Hmm. seen jëmm fi toog rek est-ce que comprendre nga baax. Hmm. maanaam ñoom boo leen invité ci plateau. oui du ñoom ñooy def plateau bi ñooy def émission. am na keneen ku nekk ci ginnaaw. maanaam am na keneen kay def plateau ba. ma nga feneen. maa sax. du comprendre nga li ma bëgg a wax. Hmm. maanaam li ñuy wax yëpp. dañ leen koy dañ leen di guider ak dañ leen di tey boo jaaroon nii laaj leen benn laaj bu automatique. Hmm. bu xaw a génn kaal bi duñu am réponse am. Hmm. est-ce que léegi am réponse du ñu am argument am xam nga lu tax ma wax loolu. dafa bari moom ñu muy liggéeyal loolu. ñoo xamante ni man yàgg naa toog suma kër. di def di leen defal émission ñoo toog ci plateau. Eh, reetaan daf maa looloo leen daal ñoom ñii. affaire ah, ah sa kër ngay toog ñoom ñi nekk ci plateau yow nga leen di. envoyé ma leen di dimbali. ah Mohamed. est-ce que mm. parce que journaliste bi <laughs> question pratiquement bi mu laaj ngeer boobu lay jëm si yow boo moytul boobu la lay laajaat. Mm. léegi nag entre temps bu la ko laajee rek dóor nga sa SMS waa ji est-ce que dégg journaliste buy ñëw si yow day fekk yow. parce que WhatsApp yi lépp a gaaw nag. nañ waxante dëgg. Serigne c'est excellent. 30 secondes. maanaam man bu benn question précise balaa muy pare am na ku nekk fële xam ne ne question boobu laay laajaan ngeer. ngeer moo ko koy dóor. Euh, est-ce que lii la laaj. wax ko ko est-ce que c'est des gens <laughs> orientés ci plateau yi. xamuñu lu ñuy wax léegi gis nga ni ci wàcc wàllum yoon mi ngi jaxase. Abdou Nguer tey mosul fréquenter benn école de droit mooy toog des fois ci ay plateau di wax ni magistrat yi war a liggéey di wax ni juge yi war a liggéey. yoo koo xamante tu n'as jamais fréquenté une école de droit. mais war na mën a am intelligence su gëstu quoi téyër la hmm. te téyër bi muy def sax nekku si professionnel. yére bii ma sol. Hmm. su ma ne woon ñaw ko du ko ñaw parce que mënu ko moom mii nag ku war a sant Sonko la. yaa ngi sànni xeer mën a fayu nag Serigne may laaj non non <laughs> attends. Ah. Abdou Nguer mii. Hmm. ku war a sant Sonko la. Ah. kii heure bu jullee fajar. ñii ñaanal Sonko moom war na ci bopp. parce que xam métier tailleur la yoroon métier ba doxul mu dugg di attaqué Sonko un deux trois laaj ko ñaata weer ñaata ñaata ñaata lay fayeeku par weer ci saaga Sonko rek xaj Sonko kon yow ci barke. Sonko sax mais mais ñaw bi saar la woon Kolda de doxul. saar xam na Abu Ngeer dafa mos sol yére bu mu ne la moo ko ñaw. non est yére jigéen lay gën di ah? ñaw. Abdou Ngeer mii. Hmm. ne la Abdou Ngeer yére bii ma sol wax naa la ko su ma ko joxoon du ko ñaw. du ko ñaw téyeer yi bokk na si ñaw yi gën a yomb yi téyeer yi def. d' accord justement sama question bëgg naa nga nga xuusi <laughs> bu fekkente ne li ñuy junj am na kan moo ci profité wu. c' est à dire waaw mais dama kan mën a njort ne moo nekk ci ginnaaw. bu fekkee ni état la mu soupçonné. parce que état mën na si ami intérêt. Hmm. état mën na ci am intérêt laa wax. Hmm. parce que rappelé naa la qui était l'homme ak la la doon occupé la la doon incarné maintenant nag quand l' juge nécessaire. Hmm. de faire une c'est parce que tout simplement état am na lu mu bëgg xam par rapport ak mbir mi. Hmm. parce que ba dem nañ comme bu fekkee du mort naturel état mun na si am avantage mun na si am intérêt en tout cas état moo ci am intérêt moo tax mu sàkku. maanaam pour mu leer. pour mu def autopsie pour mu leer. parce que wax naa la waa ji te yàggul dara ci conférence de presse Ousmane Sonko daf ko tudd. ci affaire falsification. Hmm. de chiffres et cetera tout ça waxuñu ne am na nag. Hmm. parce que ñi ko war a àtte dinañ ko àtte. dina dem si ca dem. Hmm. mais jàpp naa ne bu état tey famille bi taxaw ni soxlawuñu autopsie nañ ñu jox suñu corps ñu dem suuli ko état bi taxaw ne day def autopsie c'est parce que tout simplement y a anguille roche am na lu ci état bi. lees waxul waay kon kay am na lees waxut. Hmm. c'est ça d'accord Nguer. Euh, mhm. da ngay intervenir ci pig yu mu la jot a sànni. ah moom de sànni yu ma sax dafa ma doon sosal. ba pare jot jot na jot na sulli benn mafia.